sëñ Cheikh Fatma maa ngi lay ñi nga àndal ñëpp ci taxawal mi ngi dox sëñ Cheikh Fatma ma ne maa ngi lay nuyu di nuyu sa bokk yu baax yi nga àndal te taxawal lii muy lu am solo lu am njariñ loo xam ne ñëpp a ko war a bàyyi xel te ànd jeeg yow xaj na jàmpaay gi moo tax waaye doon na jaadu nag samay mag bari fi lool samay rakk bari fi lool naa leen dogal ngant nag tey ndax jàmpaay gi lii nu ñëpp la dal nu ñëpp la naqari nu ñëpp la metti ndokk nag biñ jabootee suñu doom ñu am fulla am fayda taxaw ci lii ngir mu saafara kon duma guddal Omar Diagne benn yoon Omar Diagne ñaari yoon Omar Diagne ñetti yoon Omar Diagne ñeenti yoon bàyyil Sëriñ Tuubaa bàyyil tariixa muridiya bàyyil dëkkub Sëriñ Tuubaa bàyyil jumaay Sëriñ Tuubaa sa nekku ci maandu moo la war gëmoo Sëriñ Tuubaa wuroo wax ci moom dara doomu murit wuroo wax ci yoon murit dara Touba xamoo fi dara te yaa ngi ñuy tuumaal ak daj li ñuy tuumaal ak soppe xaalis te dara amu ci dara leeru la ci tamit loolu bu ñu la ci toppee ca kaso bi ngay dee man yàgg naa la porte plainte te nguur gi fi nekkoon waaye jooju ñu woon dara sëñ Fall mi xam nañ ci dara mm-hmm. ñoom maam Cheikh Aïs xam nañ ci dara mm-hmm. bi yoon nag dana wute yaakaar naa mm-hmm. ndax li wax dafa jéggi dayoo te dafa tooñ askanu murit yëpp dëggal tam murit yaa ngi wax naan sëñ Tuubaa di su ko xeexal loolu suñu blaata ko waxoon waaye daa am lu ko taxoon a wax sa bundu sooj duñ ko koy fàtte duñ ko indi mook la mu waxoon ñu bokk ndey ak bàyyi ngay tam kii lépp daa am lu ko waraloon Senghor tàggatoo moo waxoon sëñ ne ko damaa yaakaar su ma fi jógee guerre civile day am ci réew mi mu ne ko lan mooy guerre mu ne ko tarixa yooyu xeex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 bu ñu la tëjee wala ñu def na bu ko defee sëñ ba topp di la lijjanti waaye sëñ moom du waxum njaaxum loolu sëñ sa moo ko waxoon Omar Diagne nag jëriñuñu lan lee ndax moom waa ji wax na ko gàtt na moo ko wax nee na ximaar la ximaar ximaar nag xamul gafaka yat la xam dëgg la de te naa ko bu la mbaam na yat wa dal mhm. mi nag daa weq weqati kon nag suñ ko saafarul nun murid nañ ko saafara suñu bopp fu mu mënti ne mën nañ ko fa fekk lijjanti ay yatakaa ngi fi ay karatekaa ngi fi dëgg la Baay Faal yor nañu ay burde mhm. amul complexe dafa tooñ dëgg la te kim tooñ lañ yaakaar adduna ak àllaaxira la te moo nu gën a sun day gën a sun baay gën a sun bakkan gën a sun lépp billaahi Omar Diagne mii yaruwut xamut xaj na nag mi ngi dund ci milieu bi ñu am xam-xam ñu jàpp ne borom xam la waaye xamut tus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 nañ ragal fitna wa taqoo fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaasa Omar Diagne nag moom yàlla da ko rëbb ndax day yee fitna fu mu toll te al fitnatu naa'ima laxanallahu man ayqaz kon wax ji du gudd damay sant sama kilifa yi rek sëñ Aliou ak sëñ Sarif ak bokk yi fa daje yëpp sant njaboot sëñ Tuubaa gi sant taalibi sëñ Tuubaa yi ñun nañ maase takku ni say jenn doole rek fi nekk sëñ Tuubaa ñu ko jox ñun ñëpp kër amut sëñ Tuubaa rek am te kër yaa ngi bëgg a yàq yoon wi nag ku ne dufal baayam jàpp ni moo def dara kenn la fi baayam defu dara sëñ Tuubaa def lépp dëgg la naam may na ñu bari lool li may bari na ndax ñi ko toppoon dañoo xamoon dara te am am am cër ci seen borom waaye ñu futtiku jaay cër boobee génne ko ku taalibe bi liggéey sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa dafa leen def kon nag ku bëgg a yokk la la faloon bu ko fàtte sëñ Tuubaa na fal bu ñu ko fàtte wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu